li mu am da nga naan non c'est pas possible parce que it aussi li ñuy wax naan dañuy tukki doon euh, dañuy tukki doon ay baadoo la bu ñibbisee bëgg doon buur donc je crois que ni nit ki sa image bi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp war nga ko mën a ba nga xam ni que ça soit l'Europe que ça soit au Sénégal ak fu mu mun munti doon ak autrement bi nga am nga war a am ba pare nag aussi ñuy sensibiliser nit ñi xamal leen ne leen l'Europe c'est pas l'Eldorado xam nga le monde est un village planétaire boo xam ni pratiquement nekk Sénégal ak nekk Paris ak nekk New York ak nekk Argentine c'est la même chose donc il faut que ñu xamal nit ñi ne leen nit ki fu mu nekk def fa plan de vie am organiser ba mu normal rek mun naa ko def ndax boo gisee nag tey nii nga xamee ne noonu la mbir mi costé ba nga xamee ni nit ñëpp dañuy bëgg voyager mais nous ñu bunkériser les frontières européennes l'obtention d'un visa ñu def ko sésame et puis comme du diamant kenn mënu cee jot loolu moo mën tax xam nga nit difficile rek da ngay bëgg a dañu bi boo gisee xale yi di ray sen bopp di dugg ci gal yi di ñafeek ay affaire demee noonu tëj ko tëj la mais les Européens ñom bu ñuy en Europe di ñëw Sénégal mais ay visa yi à lañ leen koy jox cinquante euros ngay fay ñu jox la sa visa nga dugg kooku xam nga amoo mitu Afrique mais ñoom ni ñu doxalee ñun suñu état yi bu ñu amoon courage yu doxalee noonu tey ne li nga xam ne moom lañ ñu imposer fële ñun moom leen di imposer ku war a am visa pour ñëw Sénégal ñu ne la di nga fay 3000 euros wala 4000 euros mooy ay 3 millions CFA donc bu ñu ko defoon kon tey jii réciprocité bi bu amoon xëy na ñun suñu état yi ñoo war a am fulla ak fayda jéem a xam nga li ñu jox ñu delloowaat leen ko tey di xamal gars yi ne leen nit mauvaise publicité bi nañ ko bayyi té xamni ni Europe nekkatul Eldorado bi nga xamee ni moom lañ amone bu ñëk xamalé né leen carrément la fa nek amna ño xamni xam ña nga fa passe bu ñibisé mënuñ ko am amna ño xamni def nañ fa 15 ans mënuñ fa réaliser dara donc question de destin la chance la rek ku fa sa chance nek mën nga koo jël mais c'est pas évident que ko fa dem rek da nga wara a tekki ku fa dem da nga wara am xaliss

politique de jeunesse bi ak politique d'emploi bi mom la mom mom moom raté ndax tey ni euh je crois que ni état yi fi jaar ak état bi fi nek ni tey buñ ñu lon le secteur privé le secteur informel bi ñu ñu jëm ko formaliser utal leen ay ay ay ay ay répondants yu woor yo xam dina leen mëna permettre ñu am ay revenus yu baax buñ ko amone nit ñi duñ dem mais nak mëno nek ci dëkk bo xam chômage bi dafa endémique gisoo loo liggéey. li nga bëgg doon def tey jii nii pratiquement li ko nara a gën a corsé te nag li nar a gën a andi immigration clandestine bi ak li nar a gën a tax jeunes yi di beddeeku di génn di dem ci réew mi mooy secteur informel bi nga xam dañ leen a waroon a xool nu ñu def andil nañ leen ay campagne de déguerpissement léegi déplacé nañ leen xamatuñ fu ñu jëm la majeure partie booy nga doon gis ñëpp. seen capital yi ñu amoon dem nañ delloo waat ko grossistes yi jëlaat seen xaalis di xool gaal guy waaj dem ñu mën cee dugg donc boo gisee récemment

xale yi amatuñ fu ñu jëm kon donc nag li ñuy xalaat rek mooy jéem a jaar ci mbëkk mi rek dem te mënoo leen a dissuader ba duñ dem parce que dañ leen dañuy da ngay dem ba benn instant boo xam ne sax yow boo leen joxoon cinq millions sax na leen toog leen duñ mën a toog parce que amuñ garantie ndax ku amul place amoo foo toog amatoo source de revenu fa nga doon taxaw tere nañ la ko mais da nga naan man naa dem risque sama vie rek su ma duggee jéem a xool ba xam dinaa fa mën a am dara mais daal en tout cas daal politique de ak politique. bi nga xam ne moom lañu demplois bi nga xam ne moom moo war a am ci réew mi feeñagul bu baax te gëm naa ni xëy na bu ñu amoon politique de jeunesse tey ñu ubbi ay usine ubbi ay entreprise ubbi ay société euh, xale yi ñàkkuñ jom ndax kuy gàddu ay ndaamaraas taxaw ci ay feu di ko jaay yaakaar naa ne tey jii boo ubbi usine wala nga ubbi tey entreprise boo xam ne tey am na ci salaire am dina ci suturlu dina ci faj aajoom te du jéem a xalaat naan day jéem a dem ci ay gaal. c'est-à-dire pour ces jeunes la qui prennent euh, les maire ah man de li ma gis daal mooy vraiment euh, politique de jeunesse daal amagul parce que espoir bi nga xam ne moom la suscité woon ak engouement bi nga xam ne moo fi amoon. ci li nga xam ne moom la nit ñi xalaatee woon parce que ils dañoo vendre woon benn projet boo xam ni ñëpp xalaatoon nañ ni tey jii ñi nga xam ne ñoo ngënk mi instant bii nii bu ñu yegsee rek ci politique jeunesse la ñuy njëkk a dem.

ci large Maroc et puis avec ay conditions draconiennes parce que la fois dernière nous nous ñu interpellés euh, dans le cadre de notre euh, mouvement bi seen de façon à yi dafa amoon ay euh, jeunes qui ont dañ en Espagne fexe non ba sur la frontière sénégalaise yi ci frontière marocaine la langue gars yi carré woon seen gaal bi dafa mujj wàcc Dakhla bi mu Dakhla vraiment ils étaient une bon 200 personnes la haut def nañ ay cri de cœur les vidéos sont virales ñi ngi ci mhm. téléphone yi ñom biñu waccé wàccee euh, situation bi dab na leen les nationalités yi nga xam ne ñoo fa nekkoon les maliens biñu ñu sen ambassade yi jël nañ leen yobbu les gambiens jël nañ leen yobbu seul les sénégalais ñoo fa desoon te ñi nga fa ay conditions yu metti euh, sonu nañ fa lek yi ñu leen di jox baxul ñi ngi interpeller nak le président de la république di interpeller le premier ministre Ousmane Sonko que jeune yoy nga xamni ño ñoo nekk Dakhla yoo xam mën nañ 150 et puis di interpeller le ministre des affaires étrangères ou des sénégalais de l'extérieur xalé yoy nga xam ñinga ña la doon jéem a sen seen doole naam sax d'une manière clandestine lañ ko doon def baaxutit ñu xam ne doomu sénégalais bu nekk ci ay difficultés rek war nañ la mëna taxaw kon donc jeune yoy nañ leen leen jéem a taxawu wax ambassade mu dem fa enquérir de la situation

donc léegi léegi monsieur Tall yaa ngi ci yaa ngi ci àddu jeunesse yi ñu bëree bëri amuñu xëy looloo waral ñenn ji jël gaal yeeg yu ni mel tey euh, ñu gis ni ANSD dafa def benn rapport daal di koy génne euh, di xamal nit ñi que ni euh, Sénégal quasi totalité de la jeunesse bi nga xamante ñoo fi nekk amuñu formation ay analphabète lañ tey jeunes yooyu yan liggéey nga jàpp ni wala nan ban anam nga jàpp ni état du Sénégal war nañ la see mën a jàppale ba ñu am ay emploi beneen bi moom mooy gis nañ l'état du Sénégal fànn bi nga xamante ni moom lañ bëgg gën a wala mom lañ japp ni jeune jeunes yu bëri ci lañ leen bëgg gazer mom moy mooy ak wàllum wàllum agriculture muy mbay mi est-ce que japp nga ni tam jeune yëpp war nañoo mën yëngu ci uh, walu woowu ay tam ndax idée bu extraordinaire la jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom la jeunesse. wa li ma xalaat rek mooy euh, euh, da nga da nga da nga da nga répondre da nga da nga poser question bo xamni euh ma ngi doon bëgg andi ay éclaircissement ci lolu quoi que ni Sénégal li suñu problème moy euh il faut que ñu réformer waat la formation jéem xol parce que aussi ku amul formation amo amo amo ben benn formation amo ben ben ben ben diplôme bo xamné ne la na laa mën a permettre et puis c'est là où le bât blesse gis nga je vois que ni la formation euh, euh, euh enseignement général bi aussi je crois que ni et puis dafa don lo xam dañ ko war a mo ñuy tardel parce que yaakaar naa ne tey ku jang ci enseignement général ba yegg niveau BFM war nañ la orienter ci ben filière bo xamné ñoy soit dañ lay yóbbu ci mécanique soit dañ lay yóbbu ci agriculture pour nga mën am une ndax tay da ngay carburé carburé ba yegg bac nga am sa bac dem à l'université def première année cartouché mais mu leer na yow année yooyu nga jàngoon yëpp tu l'as perdu kon donc xeyna na tey jii nii kooku noonu tey jii amul capacité pour meuna yegg doctorat wala pour yegg maîtrise waron nañ ba mu BFM, BFEM comme niko les pays développés di défé parce que yegg yeggsee ba euh, année 3 troisième rek ci ngay dem ben spécialisation bo spécialisé wo ba paré rek domaine bobu ñu mën la dem mais chômage bi li tax mu mi git lu ci bari loy def parce que man j'ai vu ñun dans le cadre de notre mouvement nous avons eu des gens yo xamné ne am nañ ay master 1 yo xamné ne dañoo dugg ci ay gal dem en économie ñii am nañ ay ay ay ay ay master en électromécanicien parce que gis nañ ni ay benn benn lay doon mais tey jii nii bu ñu la formation professionnelle bis bu ñu ko développé bu baax a baax a baax a baax laa loolu ngay wax agriculture bi tey jii bu ñëwee fekk na ñu formé woon jeunes yi ba pare donc dañuy ñëw rek jox leen terre yi ba pare jox leen le matériel agricole ñu door a liggéey parce que ku mës ku mës bay mënoo xëy rek ne ko liggéeyoo defoo dara rek ñu mën la formation ñi nga xam ne nag ñoo nekk dans le dans dans le secteur formel nous devons le formaliser pour ñu mën à am dara je crois que ni il faut que état bi insister sur la formation la formation dans le li nga gars, ni moo ñu mën a moo Sénégal ci chômage bi moo gën a mën Sénégal aussi ci emploie, moo mën a tax employabilité des jeunes bi mën am parce que it ku amul njàng dafa amoo diplôme amoo dara mais fan lañ la mën a placer mënuñ la placer fenn donc kon ko état bi nañ jéem a góorgóorlu jéem formaliser ñi nga xam ñoo fi nekk ba centre de formation nous ñu gën leen a enseignement général bi nga xamné franchement c'est théorique théorique kese la ndax tay ji nga né série L lay def nga def sa seconde ba terminal am sa bac dem à l'université def une année de droit wala une année de philosophie nga cartouché légui lan ngay defati nga tok nan noo xaral na defi formation âge bi di gëna dem donc je crois que ni war nañoo def réflexion sur l'enseignement supérieur ñu xolaat encore jeune yi nan la def ba ñu formaliser leen ba ku ci génn rek da ngay génnaal ak sa diplôme bo xam da ngay nekk ko xam paré nga pour pour pour euh, Sénégal mun laa utiliser ci domaine boobu. Sëriñ Samba Tall euh, yow nga jógee Kaolack ñu gis ci fan yu néew euh, ni ndox mi def foofu diggante Medina Mbaba ak koñ bi ngeen dëkk daanaka ndox mi bal ba dugg ci kër yi naka ngeen dundee situation bu waaw xanaa sëñ bu sentiment d'amertume de tristesse ak de regret la ñuy am ndax je crois que ni tey. am réew que ça soit sur le côté de la municipalité que ça soit sur le plan gouvernemental prévision dafa am solo ci lépp lii li ko waral alerté woon nañ auparavant que ni wax nañ wax nañoo wax ba sonn parce que it aussi état day prévenir quoi ndax euh, boo demee ci code des collectivités territoriales dafa am